لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy risaala ila saaneex ginnaaw bu nu santee sunu turu boroom yéen mbokk jullit yi inna min alaamati al iman الظاهرة التي يتجلى بها كل مسلم تعظيم شعائر الله وحرماته إن من تعظيم حرمات الله وشعائره تعظيم سهر الصوم سهر رمضان المبارك yen mbokk julit yi bokk na ci mandraga yi wane gëm yàlla gu feeñ gu wér gu dëggu ngëm goo xam ne dana feeñ ci ab jullit mooy mu màggal yàlla waaye ak lépp loo xam ne dafa aju ci mbirum diine mu xormaal ko bokk na ci màggal xurma yàlla yi ak màggal xàmmekaay yi nga xam ne dañ koy xamee diine màggal weer wi di weeru koor waaye bokk na ci màndarga yi wane ne nit ki gëm na yàlla mooy wal bu'du amma yughdibu llah mu sori lépp loo xam ne meru yàlla daf ko ciy fekk وإن من أعظم المنكرات التي ينبغي الابتغاء الابتعاد عنه في كل وقت وزمان بقي bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy mbon yi gën a rëy mooy ab jaam war na ko mu sori lépp loo xam ne mooy yàlla la ci waxtu wu nekk ak jamono bu nekk vendredi bi passé sunu borom subhanahu wa taala dogaloon na ñu xutba woon ci ramadan bila musalsalaat weeru koor woo xam ne dañuy woor ba mu jeex duñ fi seetaan benn théâtre benn sketch waaye ndeke parewuñu xutba boobu rek lu dul benn télé benn chaîne télé ci télé yi Sénégal yi am benn artiste bu fa nekk bu ñuy woowee Sana Xari def benn sketch boo xam ne daa romb ñëpp dem ba ci borom bi subhanahu wa taala mu attaqué ko jàpp naa ne ñu bëri ci yéen seetaan nañ ko bu nu paree képp ku ko amul soo ñëwee ci man ma envoyé la ko pour nga xam nga gis li nu waxoon keroog dëggu na wala dëgguwul mbokk yi gaa yi fi nu tolloog ñun mooy xeex islaam ci biir ak ci biti ku yëg ak ku yëgul wàññi jullit yi seen digganteeg seen boroom ba dootuñu ko wormaal yëg-yëg bi ñu doon am suñu digganteeg suñu boroom màggaayu suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu lool di denc suñuy xol ndànk-ndànk ndax ab nit bu toogee di attaqué yàlla di ko joxor bi baaraam di xool kaw asamaan daan ko yow yàlla ku jara waxal nga yow lu fi desati fa min azamatihi mbokk yàlla du moroom de yàlla subhanahu wa taala sunu boroom wallahi ku ko xamul rek moo koy tooñ mooy jéem a jalgati ay darajaam ak kattanam ak darajaam ak maqaamaam moom yàlla subhanahu wa taala sunu boroom su nit ñi jàngoon alquran dégg ni mu waxe boppam ma axbara bihi an nafsihi almuqaddasa ni mu waxee borom bi tabaraka wa taala ni mu màggale boppam kon nit ñi danañ deltu ginnaaw danañ tuub danañ xam ne borom bi du moroom waaye borom la sunu borom ak nuy nettali ci benn wàccuwaay ci aayam yi mu ne wa ma qadaru llaha xaqa qadrih wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyama wassamawatu mutwiyatun biyaminih subhanahu wa taala amma yushrikun borom bi nee na keroog bés penc yawmal qiyaam nit ñi danañ xam ne màggaluñ ma woon màggaluñu yàlla réeluñu yàlla wa ma qadarullah xaqa qadri ni ñu war a gëmee yàlla dëgg-dëgg gëme wuñ ko niñ ko war a jàppee jàppee wuñ ko niñ ko war a fonkee moom borom bi fonke wuñ ko noonu màggaluñu yàlla joxuñu yàlla gëddëm borom bi nee na ëllëg wal ardu jamian suuf sépp waxul benn parti de wal ardu jamian suuf sépp mboolem seen mu ne qabdatuhu yowma alqiyaama nii laa koy nëbee ëllëg yowma alqiyaama mu ne wa samawaat mutwiyaat asamaan yi ñu lem leen comme basan ñaar yooyu yépp suuf si ak asamaan yépp bi yaminihi ci loxo ndey jooram bi lay nekk waaw kon kooku ndax nit war na ko yab ndax nit war na ko ñàkk a weg ndax nit war na ko fawe ndax nit war na organiser ay théâtre romb ñépp jëm ca yàlla ñépp nga romb leen amoo looy def lu dul ci yàlla nga jëm direct di ko kafe ci weeru koor ci heure boo xam ne jullit ñi dañoo woor kon ngeen xam ne programme la nanu yeewu programme la sunu bëggee di jalgati islaam xon naa leen ne ci rajo yeeg tere yeeg artistes yeeg ci ñooñ lañ koy jaare ndànk-ndànk ba mujj gi bu nuy wax yàlla allah dootoo sentir dara ndax day fekk yépp dee na borom bi nee na subhanahu wa taala amma yushrikun sell ñeel na ma man yàlla wa taala moom bur yàlla kawe na amma yushrikuna yiñ koy bokkaaleeg ñiñ koy dendandool ak liñ koy dendale moom yàlla sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam di nu nettali mu ne ci hadis boo xam ne buxaari moo ko solo mu ne yaqbidu llahu l arda yawma alqiyama yàlla day ngëpp suuf si ëllëg yawma alqiyam wa yatwi samawat mu lem asamaani bi yamini ci loxo ndey jooram allahu akbar te loolu kañ lay am bu ñépp faatoo ba doomu aadama desatul ci kaw asamaan suuf malaaka desatul ci kaw asamaan yàlla ngëpp suuf si lem asamaan yi téye ko lan lay wax moom yàlla summa yaqul ana al malik ana al malik ayna al muluk ana buur yi ana al malik ñépp faatu nañ ci suuf asamaan kenn nekkatu fa yàlla lem lépp daal di jàkkaarloog àdduna ne ko yaa dunya ayna xusuuriki aduna ana say kër ana say sato ayna abnauk ana say doom ana nit ña ayna aljibaal ana montagne yi ayna albihaar ana géej yi yàlla ne ana almalik man yàlla maay buur man yàlla maay buur ana almalik ayna almuluk ana buur yi allahu akbar ayna mulukul ard ana buuri suuf yi mbokk yi ndax ku mel nii kuy wax ne moom ab jullit la gëm na yàlla gëm na ko moom buur bu mel nii war na ko wekk wala waru ko wekk war na ko jox gëdd wala waru ko jox gëdd war na ko ormaal wala waru ko ormaal waaye nit ki su xamul dara réere ko li tax réew mi mënuñu wekk diine mënuñu wekk Seydina Muhammad mënuñu wekk yàlla parce que xamuñu ko jàngaluñ leen ko gis nga nit ñu jàngal kuñ ci wax kenn nit ñi rey la saa neex li mu wax barki démb yàlla su ko waxoon benn kilifa fi faat nañ ko bu yàgg ku ton na yàlla nga naan ko yow ku jara waxal nga yow yàlla du ma la sant nekkee woo fi ñi ngay defal nan la sant ñi nga may nañ la sant nañ la jullil man duma la defal dara loolu nit war na ko wax yàlla même kuy kaf ndax kaf yooyu war nga ko adressé yàlla te ndax diine ji kaf am na ci ndax dañu yaakaar ne lislaam dafa ñëw pour ñu kaf ku nekk rek loo jël dugal ci déglu leen mbokk yi ñi àndoon ak Seydina Muhammad doon kaf kafe diine al istihzaau bi diin wa bi ahli naaqidun min nawaaqidi l iman wa kufrun billah wa bi rasulihi wa bi diini fawe diine di kafe diine comme ni ñuy def ñun yenn saa saa nga seen nit naan ko yow sa sikkim bi sa yii ngay def yu ndaw ndawaan yooyu laa wax de ngay mel ne nangam yooyu ku ko def rek murtat nga génn nga ci lislaam ndax da ngeen jàpp ne ñi nga xam ne dañuy roy sayduna muhammad lu ñuy def dañu koy def nii rek falaa falaa lépp loo gis ñu def ci texte lañ ko teg ñëwal ci sikkim lan moo ko fa bàyyi ndigal gu jógee ci sayduna muhammad moo ne xaaliful mushrikin wal yahud wa nasaara wuutaleen yahud yi ak nasaraan yi ñu ne ko nasaraan yi moom lan la ñuy def seen sikkim mu ne dañ koy wat ba mu set bàyyi naanu yi mooy faas yi faas yi la ñuy bàyyi wat sikkim yi ñu ne ko yahud yi nag mu ne dañuy bàyyi ñaar yépp mu wàcc mu ne yéen wàññi leen naanu yi bàyyi sikkim yi bàyyi leen ma ko fi waaful liha bàyyi leen fi sikkim yi yaay aysa ne subhaana man jammalal rijaali bil liha sell ñeel na yàlla mi rafetal góor ñi ci seeni sikkim kon ndigal la waaw bu fekkee ndigalu Seydina Muhammad la ndax ki jëfe say ndigalu Seydina Muhammad dañ ko war a xas ah dañ ko war a xas ki jëfe ndigalu Muhammad dañ ko war a diingat ndax moom tey boo gisee kenn kuy toppandoo Michael Jackson wala muy toppandoo Bob Marley wala muy toppandoo wala muy toppandoo mu jàpp boppam bi baram ko kenn du ko wax dara sa waay yow sa bopp bi nga baram nii loo koy doyee mu ne la kii Marley laay toppandoo wala mu ne la diw laay toppandoo gars yi dañ naan jaa jëf waay kenn du wax dara waaw képp koo gis fii muy toppandoo kenn kenn du ko wax dara waaye mbir mi soo ne Muhammad rek gars yi commencé jëlal tubéy yu gàtt yi léeg-léeg gis ku ne yow xanaa seen kër daataa waaye yow xanaa tisi bi nga jënd daa manqué waa yow lii waa yow lii loolu ndigal la Seydina Muhammad moo ko joxe ñëwal ci julli teg loxo ci dënn léeg-léeg nga rek ku ne la ko yow loo mel ne boxeur nii koo bëgg a boxol da nga bëgg a xeex ak yàlla loolu wax leen ko ndigal la yonent bi moo ko digle kon mbokk yi kenn du tuutal lu aju ci diine rawatina nag la jëm ci sunu borom subhanahu wa taala tuutal sharia di ko xas mooy li ngay dégg da ngay dégg ku ne man sama yoon ci sharia te loolu dafa bokk ci nawaqidul islam benn la ci nawaqidul islam wa hada al hukmu lam yahkum bihi al bashar atte boobu nag ku xas diine yéeféer nga atte boobu doomu aadama yi atte wuñ ko de ku yaakaar ne borom xam-xam yee ko wax nax nga sa bopp kooku nas la bu bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala borom bi nee na boo fekkee ñooñu di fowe diine ñooñu di xas sunna muhammad wala ñuy attaqué yàlla boo leen waxee hé wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nal'ab gis nga tey ku jógoon dem ci waajooju di wax ak moom danaan la non dama doon kaf rek inna kunna naxuudu wa nal'ab même aaya bi même baat bi la yàlla indi dama doon fo yàlla xam na mooy borom asamaan ak suuf moo bind nit ñi alquran kañ la wàcc septième siècle di ñu wax ne gars yi danañ ñëw di fooyee yàlla di fooyee alquran di fooyee diine soo leen laajee ñu ne dañ doon foofu bi ko yàlla di wax kañ la woon boobu waa ji juddoogut loolu mooy lay won ne yàlla mooy xabiir alim yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur waaw yàlla lépp la xam yaalamu ma fi samawat wa ma fi l ard li ci asamaan li ci suuf wa ma taxta sara ba ci li ca suufu géej ca ginnaaw montagne yàlla xam na ko moo tax yàlla nee na boo laajee gaa yi tey ñiy fawe diine di ko théâtre di ko ree di ko kase ci rajo yeeg ñooñu boo leen laajee ne leen yéen li ngeen di def ñu ne la kunna na xuudu wa nalab ñun dañ doon xuus rek di fo déglu leen lu yàlla tont qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un waaw yéen seen fawkaay amul fenn fu ngeen ko jëme lu dul ci yàlla kub yonentam gaa yi kuy foo ndax war na fawee yàlla kuy foo ndax war na fawee yàlla kuy caaxaan ndax war na ko jëme ci sayduna muhammad ndax kuy foo war na fooyee muhammad soo leen laajee ñu ne la ñun dañ doon fo yàlla ne leen ndax yàlla kub yonent ngeen di fowe gaa ñi ne teg xamuñu lu ñuy tont yàlla mu ne laa taataziru qad kafartum baada imanikum bu leen indi ngant bu leen wax nangam ak nangam nit ñi dañoo wooroon rek ñu bëgg nit ñi reetaan ndax fàtte mar gi ndax fàtte nangam ndax ndax ndax bu leen wax yooyu yàlla nee na yéen weddi ngeen yàlla ginnaaw ba ngeen gëmee tey ay yéeféer ngeen su yàlla waxee li nañ noppalu keneen mënu fee nekk di rafetal naan waaw seeka nangam ak nangam ba yow li nga wax nekk dëgg ci kaw waxu yàlla mënul nekk ndax yàlla moo ne ñii di fawe diine ay yéeféer lañ ñu bëgg a indi ngant yàlla mu ne duma ko nangu qad kafaru la yàlla wax baada imaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla tey ay yéeféer ngeen mbokk julli fa taamal raaka allah déglul bu baax yal na la yàlla sàmm yow jullit bi lan la yàlla wax subhanahu wa taala ci attey gaa yii fa taamal xoolal bu baax xerawlul déglu sunu borom moo atte ne ñi ay yéeféer na fa hukmuhu hakamahum fama baaluka fi man waqaa fi asad min zalika min anwa'i al-istihza'u bid-din wa shara'i'ihi wa ahkamihi wa hamalatihi su yàlla àttee ne ñii doon xas keroog sahaaba ya naan du ñu wax dëgg seen biir yu rëy yi ñu dem wax ko yonent bi aaya bi wàcc yàlla ne ñii ay yéeféer lañ kon ku romb ñii ñëpp dem ca borom asamaan ak suuf lan nga ku nekk atte bi yow yaa koy waxal sa bopp mbokk yi ñaareel bi mooy anna sababu nuzul hadihi al aya yubayinu an la kalaamu alladi tafuhu bihi baadu almunafiqin huwa fi nazarin kasir min annas gis nga tey wax yi programme yi ñuy tëral yii nit ñi dugal ci seen pas-pas yi yenn saa yi nga ne yàlla ñu ne la waaye boo dee yàlla tawal doj xoolal baat boobu boo dee yàlla tawal xeer waaw nit ñi yàlla ci boppam lañ la ñu def moroom ak nawle parce que diine bi lañ xamut xamuñu kan mooy yàlla mbokk yi xale xale mooy génn bu seen buntu kër mu fekk gaynde ci buntu kër gi mu tëdd mu war gaynde gi lu ko waral mooy daa xamut waaye baayam bi ko jur su nee tëll gis doomam war ci gaynde mu xool ko muy gaynde mu leer ko nañ gaynde gi di xool xale bi di xool baay ji gaynde gaa ngay xool xale bi naan ko gis nga xamoo ma wala sa baay bee moo ma xam parce que ñemewul yegg si waaw xale bi nag mooy ñun ñun xamuñu yàlla loola tax xamuñu diine xamuñu sharia lu ko waral mooy jàngalun nu ko ñun liñ nu jàngal yëpp ñu ngi koy aar ñu ngi kiy rey suñu bopp da nga gis koo xam ne li li ko loolu jaral amma yàlla allahu akbar waaw day gis yàlla jaraluñu dara da ngay dégg sax yenn saa yi ñu ne la yàlla kese kese dafa ri tax yow loo gëm mu ne yàlla ne yàlla kese nga gëm mu ne waaw yàlla kese kese waaw yow xanaa xamoo yàlla kese dafa ri tax foog yàlla ak waaw yàlla yàlla bay sa tool mbir mi ngay def balaa nga koy def na nga naan sàngam na nga dem ci diw mu sang la wala mu takkal la wala mu aar la wala nga ni ko non bàyyi ma rek ma gëm yàlla kese ma ñaan yàlla mu ne yow da ngaa dof gis nga yow demal rek yàlla kese ndeysaan du ma fàtte mukk benn mbokk bu papaam génnoon àdduna ñu dem dëji suul ko ñëwaat gars yi ne dañuy dëj mu ne kenn du dëj suba ba ngoon gars yi di wax ak moom mu ne fii kenn du fi dëj benn waay ne bàyyi leen ko kii dof la yàlla rek la gëm dafa dof dégg ngeen loolu kii dof la yàlla rek la gëm mun leen koo wax lu mu def mun leen koo wax lu mu def lu tax parce que yàlla rek la gëm loolu mbokk yi mooy lan naka la ñuy adressé ku gëm yàlla ñu ne ab dof la hikmatun baligh qaala seykhul islam ibnu taymiya fa in azamatu llahi taala wa jalalihi fi qalbi al abd yaqtadi taazimu xurmaati wa taazimu xurma xurma mbokk yi cheikh al islam nee na bokk na ci dëgg-dëgg luy wane ne nit ki gëm na yàlla yàllaa ngi ci xolam bëgg nag mu màggal yàlla ak lépp lu ci aju mbokk yàlla bi muy wax ak Moussa rek ca montagne tuuru Sina Moussa laa wax te ulul azmi min ar-rusul yàlla dana ko faxla naalayka simmil dàll yi ndax respect lu tax ndax dàll yi der bi dàllu yàpp mbaam la deru mbaam la simmil dàll yi ndax respecté yàlla jalla jalaaluhu yow fii fii ñun xoolal tey jàkka ji ñu nekk ci biir mbax na yaa ngi ci kaw bopp yi léegi la ñuy julli pare nga dem ziyaara ji kenn simmi sa mbax na teg ci suuf néegu yàlla bi nga fa duggee sa mbax ne mi ngi sa kaw bopp bi nga duggee ci sa néegu xarit sa kilifa nga simmi mbax ne mi ñoom ñaar koo gën a màggal bi nga nekkee ci jàkka ji da ngaa tàllal say tànk nu la neex nga toogee bi nga demee fee da ngaa ngapparu ne kuruj siggiwoo sax xool ci kaw da nga sëgg da nga sëgg xamoo sax saal bi ñan ñoo fi nekk ndax toroxlu gi nga toroxlu bi nga nekkee ci néegu yàlla nag loxo bi fële nga ko sànni tànk bi fële bopp bi fële lu neex nga def ñoom ñaar kan nga màggal kan lañu màggal ñoom ñaar nanu delloo siwaat sunu xel nañu xoolaat li ñu waxoon vendredi la ñuy waxaat nañu aaraat suñuy rajo aaraat suñuy télé aar suñuy doom ci seetaan giñ koy seetaan xale boobu tey toog ci kanam waajooju muy attaqué yàlla di ko wax di ko joxor bi di ko jam baaraam xale bi seetaan loolu day yaakaar ne lii moo war lii mooy dëgg ëllëg ak si biir xale bi su amee lu ko dal mu ne yàlla lu tax nga ma koy teg comme waa ji li mu wax yow yàlla lu tax may feebar lu tax may ñàkk lu tax nga may def sàngam dañu jàpp ne yàlla dana def ba pare ñu naan ko lu tax ngay def laa yus'al amma yaf'al wa hum yus'aluun yàlla bu defee kenn warul laaj yàlla bu defee rek xam nga lu ñu war a wax nangu nanu jeex na nangu nanu yow yàlla loolu mooy alaamatul iman yonent bi dafa xëy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم mbokk yi alhamdulillah alhamdulillahi nasiri المظلومين وقامع الظالمين يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعل لهم أئمة ويجعل لهم الوارثين mbokk yi benn bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa xëy jàkkaarloog Umar ne ko Umar amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Umar ne ko naam mu ne yaa Umar fa ma alaamatu imaanikum Omar ne ko narda bil qada wa naskuru fi raxa wa nasbiru alal bala Omar ndax gëm ngeen yàlla mu ne ko waaw waaw dëgg dëgg gëm yonent bi ne Seyduna Omar fama alaamati imaanikum luy wane ne yéen gëm ngeen mu ne ko narda bil qada lu yàlla dogal sunu kaw nangu nanu wa naskuru fi raxa dañuy sant bu neexee yàlla wa nasbiru alal bala bu nu yàlla tegee ay natt ñu muñ ñett yi mooy wane ne gëm nga yàlla ki amul loo ndogoo nag naan yàlla yow joxooma dara kooku kon moom lan la xanaa jàngoo wa nasbiru alal bala dañuy muñ bu ñu yàlla nattoo kon ñett yi mooy wane ne gëm nga yàlla nit ki buy wane ne gëm na yàlla nañ ko natt ci natt yi ndax bu neexee kan lay sant bu neexee fii tey Sénégal ñun bu neexee kan la ñuy sant chaque jour nga gis ay baas yu ñu samp dañuy sant dañuy sant waaye boo fa yeggee carte ya sax carte yi carte invitation yi doo fa gis ñu ne naskurullah la naskuru Moussa naskuru Demba naskuru Aida naskuru Dégél carte invitation yi laa wax yi ngeen di yor seen poste ñu leen di woo ci cant yooyu doo fa fekk yàlla te mooy màndarga gëm yàlla mooy naskuru firraxa su neexee ñu sant la yow yàlla ndax yow rek yaa ko neexal nag kenn neexalu ko kudul yow su seddee yow la bu tàngee yow la bu ñu wéree yow la bu ñu feebaree yow la bu ñu amee yow la bu ñu ñàkkee yow la ndax yow yaay coobarewu ci sa jaam yi lu la neex nga def ko te kenn du la interpellé ne la lu tax nga def te ku mu mun a doon ëllëg di nga taxaw ci kanamam wax lii nga def lu tax nga def ko mbokk jullit yi alquran moo nu wax ne ñun wegunu yàlla ñun ñëpp jàng nañ ko suratu nuux inna arsalna nuuhan lan la yàlla wax maa lakum la tarjuna lillahi maa lakum la tarjuna lillahi yàlla nee na yéen a ngi nii kenn ci yéen weguma kenn ci yéen wegul yàlla wallahi yàlla xam nañu yàlla xam na ne weguñu ko ay xërëm ak i gàllaaj ak bokkaale gi nit lañ gëm waaw ngay gis ku jib sax bàmmeelu ku dee nga simi say daal tekki sa kaala diraam ana yàlla te buy kenn doo fi gis muy dem jàkk diraam pourtant néegu yàlla moo jara raamal ndax yàlla jar na raamal wala jarul raamal ah ndax yàlla jar nañu darngu wala jaru ko waaye doo ko gis nit ñi lañ koy defal loolu mu la yàlla ne maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaaran ay laa tucaamiluunahu mucaamalatan man tuwaqiruunahu nii ngeen wege ñii wegewu leen ko yàlla yàlla xam na yàlla xam na li ci xol yi loolu tax ba ñu xamee ne nit ñi weguñu yàlla ñu defal ñu ay théâtre ak ay animation di xas yàlla ak sunub yonent nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko qaala ibnu abbas laa taarifuunahu xaqa azamati ñoom ñëpp benn aaya bi la ñuy firi xamu leen yàlla dëgg-dëgg màggal wa qaala mujahid laa tubaaluuna azamata rabbikum faalewu leen seen màggaayu boroom qaala alxasan ma lakum la taarifuuna lillahi haqa wala tashkurunahu benn aaya la ñii ñëpp benn firi lañ koy firi xasanul basri nee na yéen a ngi nii xamu leen yàlla la taarifuuna lillah xamu leen yàlla dëgg la xamuñu ko wala tashkuruna gis nga du ngeen ko sax sant lan la yonent bi joxe woon ndigal ci ku woor ba ngoon bay dog li taxoon keroog ñu ne ramadan bi laa musalsalaat parce que xamoon nañ ne musalsal yi télévision yi théâtre yi pour dindi ruuxu ramadan la pour dindi ruux bi na nit ki woor rek ba ngoon bu mu lekk bu mu naan bu ngoonee jeex na fekk ibaada la woon jaamu yàlla assawmu ibaada koor dafa ñëw pour defar la pour nga jege sa borom xoolal léegi ñun sunu borom boobu ñu war a jege ci koor gi ñu koy xas musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande woni risala i- ila saneeh ko risala e winduɗen mo saabu o waɗi théâtre goto heccanki e nder télévision cak hedde futuro yimɓe ina kumto ala mo joopi hen sowona allahu subhanahu wa taala ɗum hande sarima e internet o yimɓe foof dañi ɗum kala mo ala ɗon sen jiwli an gayni sa arimami totte keɗoɗa ko haali allah ko so tawi julɗo ina haala ɗum allah so tawi julɗo gonɗinɗo allah subhanahu wa taala ɓernde makko allah nan hen ɓernde makko limanagal nan hen ɓernde makko yidde seyduna mouhammad nan hen ɓernde makko alqur'an inan hen so tawi on ina joopo allah subhanahu wa taala ina wiyamo an ka poɗɗo haaldede saabu ko mbatta ko a fawan ɗum e haydara ko jiɗɗa tan mbatta ɗum julɗo ina wiya ɗum allah biɗo ina yiɗi allah ina joopomo hande hal goto e men mo joopoto bammum wiya bamma an ka poɗɗo haaldede sa wi noon bamma est ce que ma humtoye galle he sa yehi a fijoyi ha ñalwi ñalwi a ari bamma ina namdoma to wonnoɗa ko namdotoma ko welanima mbiyamo an ka poɗɗo haaldede mbiɗa sikki oɗon ñalawma a walata e galle he sa dogani jawa yaltude law ko sawru yaltintuma holno julɗo huccitay nela allah subhanahu wa taala a tottani allah kaaddi hattan makko kanko allah o haali en no foti no wayi o wi yimɓe ɓe ɓe ɓe mawninani kam ma qadarullah haqa qadri ɓe mawninani allah no ɓe poti mawninirde mo holno poɗɗa an allah o wi ƴeewe no potmi pour gandon janngo yawmal qiyamati wal ardu ndiɗo leydi ndi gonɗon no tolni fof jamian o wi tawkid o wi qabdatu wassamawat mudwiyat o wi biyamini sen rendini asamano e leydi ndi so neɗɗo ari jaggi galle o fof nokki ɗum longere wootere o wi to mawɗo galle o woni yimɓe ɓe dogay hay goto wiyata mawɗo galle nani mawɗo galle so tawi o woni noon o wiyey ko oya walla walla ha so neɗɗo addi paɗe mum e galle ma o ɓorti faɗo ngo faɗo ngo fotine damal suudu ndu walla damal galle ngal o wi to joom galle o woni joom galle o wiyat omona kono wiyata mbiɗeni allahu akbar allahu akbar ƴeewe allah ko wi o wi asaman o e leydi ndi fof janngo mi jaggat ɗum e junngam ñaama ngoɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi janngo allah so waɗi ɗum haa gayni o darata omo naamɗo omo wiya anal malik ko min woni laamɗo o ayna mulukul ard to laamɓe leydi woni hay goto jaabota ko laamu jiiba ahad illallah duuɓi capanɗe duuɓi capannayyi yimɓe ɓe ɓe deƴƴay hay gooto jaabota ko so allah wi aynal mulukul ard hay gooto haalata ɗum fof ɓe deƴƴay allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba allahuma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا bima faala sufaau minna قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا